bisimila ci ëttu yëglekaay yene kay di lu bax tv.com sen bok sen khadi Cheikh be mo ñew di fësal di ci yi tey nak la mardi 21 novembre ci atum 2023 bi nga xamne mom lañu nek bok na ci li nga xamne mo doon altine démb bi réunion bi nga xamne war nañ ko amal ñi nga xamne ñom ñoko amal moy arrêté bi nga xamne mom mo gën non tabu len ndax ñoy amal nañ réunion bobu am amalaguñ ko en tout cas di wërté wër mom bu fekkay amal nañ ko daanaka xamaguñ ci dal wala bok dara du seegu ci li nga xamne war na mëna gën ñu mar ko distribuer xamne réunion ba li lañ ci wax ndax réunion ba du lo xamne dañ ko xër rek daal di bàyyi ci biir wala réunion ba daa mujjuta am am déet en tout cas bu fekkante ni am na moom daraa ci ruuseegul ak bu am na ndax ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci arrêté bépp xam ne ñoom ñoo ne ñoom ñoo fi nekkoon eh, ci saison 2023 bi xam ne ba tey génn guñ ko wala boog ci at xam ne moom lañ doon i eh, i ndomba tànk dañ koo dañ koo wàññi ñenn ñi daal wax nañ ne daal yenn woon dafa mel ne daal Fall dañ ko jël wàcce leen suuf am benn benn yoo xam ne dafa mel ne dañ leen a rocc ci loolee nga xam ne moom moo doon arrêté ba nga xam ne moom mooy arrêté bu njëkk arrêté bii nga xam ne ñoom ñoo war a woote woote boobu woote boobu buñ ko wootee ba poob kan la ñuy dox compte rendu en tout cas li wérte moom moom président CNG bu Cour suprême moom njortu nañ ne réunion boobu même bu fekkente ni bii na am na mm. moom du ca taxaw ay ñooñam ndax it danañ ci taxaw en tout cas loolu wóoruñu waaye yaakaaruñ benn yoon ñoom ñooñee danañ ci ñëw ndax borom fas yi ñoom ñëw nañ ci en tout cas moom réunion boobu dañoo ne daal ñu nekk ci arrêté bi ñoom ñoo cee ñëw am benn benn fas yo xamne borom benn fas yo xamne ñinga ci biir ñoom it ndax nañ participer en tout cas mom lool lepp mom bu fekkante ne am mom dana leer nañ dana mel ne mi dugg and ak lampam en tout cas lu ci xew rek war nañ ko télé IDB université Dakar Bourguiba ba surtout seen caab mom gisoon nañ mu defon lo xamne action la action bobu benn bolam ñi nga ñoom ñoo ñek ci course ñu leen ay entraîneur ak ñi nga xam ñoo ñoo ci nek di ay ke ñoom ñepp dal, li nga xamne wax nañ ko dal mooy dal gis euh, lool de dal war nañu euh, def lo xamne dara tax nit ñi ñeme mooy fexe ba créer ay courses yoo xam ne war nañ ko dawal buñ ko dawalee nit ñi mën a appuiser wu xam ne ñii ñoom buñ fi toogee danañ fi def lu mucc ayib ndax ñoom action boobu daal gis nañ ne daal vraiment daal mi ngi bëgg a yàgg mi ngi dugg ci ñetteelu atam waaye taxawul daal ñu rebondir benn yoon ci li nga xam ne moo dul course hippique bu Sénégal ndax dañoo bëgg a jël ay bañ a jël ay koppar ànd ko ñi nga xam ne ñoom ñoo fi nekk di jëf seen xaalis wala dañu bëgg a ba ñoom ñu door a yor course bi door a jël lool door koo exploité cin bu naree neex bu baxee xeeñ loolu olof Njaay wax 17 ak 18 ak 14 ñoom daal wax nañu ñi nga xam ne moom lañ wax joxar bi leen mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo di eh, éleveurs yi éleveurs yi nee nañ sonn nañ ba àgg ci lool ndax daal gis nañ ne daal fas yi nga xam ne moom moo nekk ci réew mi daal ñoom daal duñ ciy dugg donte amoon nañ ci passion waaye dañoo ne woon daal duñ dugg ci dara di ci perte ndax daal dañoo bëggoon bu ci duggee rek man cee am dara li nga xam ne nag moo tax moo leen galajaane bu mënu cee am dara daal gis nañ ne daal fas yi daal fi mu toll nii daal jaay ko nekk na problème boo xam problème bu difficile la ndax daanaka ñi fiy jënd matatuñu ñeenti nit ndax loolu bu continuer élevage bu dudee ah kay élevage bi mën na faa jaare fay ba faw wala boog bala ngaa jaay sa fas da nga dawal ba mën a daw nga door koo jaay te am na ñoo dawal bi day metti ci ñoom trop fii lañ yamandi bye bye bonne continuation à vous à vous Dakar Ha ha ha!